dafa am loo xamante ni dafa am te faw ñu wax ko euh, sunu papa bokka Samba Dièye dafa di nit koo xamante ne dafa liggéeyal Sénégal ñu wax kaa nangul nii kàngam la ci mim réew te kenn waru kaa fontoo te ñu gis ni que dafa am ay nit yoo xamante ne dañu nekk ci ginnaaw di utiliser turam ak di utiliser problème bi nga xamante ne jafe-jafe bi nga xamante ne moom la am ak CBAO pour am ci tuur wala pour xeex ci président Abdoul Mbaye nit yooyu nag mu ngi doon ay nit yoo xamante ne ñi ngi certes ci état bi parce que fii xam nañ politique moom boo xasee ba nekk ci opposition ni muy demee ñëpp xam nañ ko mu bokk ci ay nit yoo xamante ne dañoo nekk ci opposition bi ci boppam te ñu leen di fàttalil ni dañoo wax àndandoo doo doonandoo benn parce que tey fi léegi àndandoo wuñu doonandoo benn rek dañu mën defaraat réew mi ni ñu ko bëggee waaye mu doon nit ay nit yoo xamante ne tekkiwuñu dara ci réew mi bëgg am tuur tax ba nga xamante ne dañoo jàpp ni que rek Abdoul Mbaye la ñu war a def morom moom la war a def nawle war ko utiliser ci seen i ay waxi caaxaan ba ngeen ne nag ñuy naan ni que c' un problème de banque c'est entre euh, une une banque et euh, Bocar Samba Dièye waaye dëgg la xëy na dëgg la sax nag amul sax xëy na dafay di dëgg waaye nag problème bu banque boobu dañ ciy lim ki nga xamante ne moom mooy Abdoul Mbaye nekk ancien premier ministre nekk tey président alliance pour la citoyenneté et le travail te ñu ngi ko ci tàmbalim tàmbalee lim bi nga xamante ni dugg na ci politique te moom dafa fekk ni nekkatul euh, directeur général banque boobu noonu depuis bu yàgg. donc turam waxutoon a wax mën a ñëwaat ci mbir mi waaye nag ndigam bëgg nañ ko faagaagal laal ñu bunt bu nekk sottiwul boo tax ñu ne nañu jaax fii nii xëy na fii dina nooy waaye du nooy nag parce que duñu leen ci bàyyi ndax bés ni ki tey képp ku ko limati ci mbir mii nii te tegoo ko fu woo dinañ la topp si yoon loolu benn la ak ku mu ci munti doon beneen bi moo di mbir mii nii ñuy wax affaire Bocar Samba Dièye CBAO parce que nag du affaire Abdoul Mbaye Bocar Samba Dièye affaire Bocar Samba Dièye CBAO la dañ ko yobou won ci yoon mom Bocar Sambal yi da ka yobou won ci yoon bim ko yobou ci yoon justice bi tranché mu am li ñuy wax décision de justice te ci biir décision de justice bobu noonu lepp ngi ci bi leen bim mu leen dayee noonu bu dee dañoo yaakaar dëggantaan njaay ni que Abdoul taq na ci ci li wala ci lé wa nañu yobou abdul Mbaye ci yoon gënul yom mo gën nekk ci presse bi di porter presse ndax ñi ngi ñuy jiiñ duñu wax ak ñun ndax ñun euh soxlawul euh, parti euh, communication Abdoul Mbaye tak taxaw ci presse bi di wax waye ku ko jiite ñun kèn dañ ka def mu set te leer maanaam ñun dañu woote né leen ñëw leen depuis le 27 juin lañu ñu def communiqué ne leen ñëw leen ngén tok ñu waxtaan presse bi féké presse bi sax ñom ñoy modéré boobu bu boobaa incha question bu ñu mënte aborder ñu répondre ko ci mu lèr ben yoon ñu évacuer dossier boobu non jallit ci leneen ndax wax bi bëri na te jaxasoo na torop ndax Abdoul jóg na wax waxu traite ñoom ñu ne kayit boobu amul sunu papa Bocar ne kayit boobu amul léegi kenn ku ñuy wax faamari Ibrahima moom ci compte Facebook am screen dañu publication bi moom mu tegal ñu ñetti traite ñetti traite yoo xamante ni dafa mel ni sax nag bi ko bi ko Abdoul mbay jàngatee bi nga ko yónnee ba mu jàngat ko dafa mel ni benn bi moo ci authentique kon maanaam benn dañ ne amuñu bor ah bor am na nañu nangu ndax bu dee papa Bocar dafa ne bor amul te Famara mi nga xamante ne nee na papa Bocar lay dooleel ñëw ñu ñetti traite te ñetti traite yooyu benn bi dafa mel ni moom dong nga ciy dëgg te dañ ko avaliser sax nag faaf kon gañ boo am na bi moo supposons soit ñun la ñoo ne benn traite la ñoom ñu ne ñetti traite waaye léegi damay laajte bu dee yéen par exemple da ngeen amee euh, benn banque bu mu munti doon 100 francs amelaat ko 100 francs amelaat ko 100 francs ba muy 300 francs banque bi am benn option dagg leen 100 francs 100 francs 100 francs ba muy 300 francs wala daggandoo leen 300 francs waaye au lieu mu daggandoo 300 francs dès le début mu bàyyi ba ci fin bi mu daggandoo mu daggal mu 300 euh, francs yi ban différence la am en a un rek réglé. au contraire bu ñu bàyyee ba fin bi ñu daggandoo 300 francs yi yow di nga am temps wu préparer wu psychologiquement xam ni que war nga de gën a dëgër parce que bu ñu la pompé wee rek dina métti ci yow donc tey euh, xet amna, parce que nous seen bopp wax nañ ko léegi nag li ci des détail technique yi ci des ñoom nañu génne li nga décision de justice bi jox ko journaliste yi journaliste yi gis li ci biir ñu nit ñuy gis li ci biir parce que décision de justice boobu noonu mi ngi diggante ñoom waa kër suñu papa Bocar Samba Dièye ak waa CBAO di dellu nag di ñaaxaat sénégalais yi di ñaaxaat ñi nga xam te ne ñoom ñooy layoo euh, Bocar Samba Dièye waaye di ñaaxaat état du Sénégal ñu xam ne kat kilifa la ñu amal affaire ku ma bu ma newee kilifa newuma Abdoul Abdoul kilifa la leer na kenn waxal ko waaye Bocar Samba Dièye tamit dafa di kilifa boo xamante ni liggéey na ci réew mi loo xamante ni kenn waru ko jël di ko dëbb dëbbee di ko caaxaanee ngir rek am tour li ci nekk nag te waxu naa ko ci doxteel bi te maa ngi koy waxaat bu leen dayee noonu nañ ñu woo fu ñu woo ñu leen ñu ñëw débattre waxtaan ak ñoom journaliste yi nekk modérateur ñu bu leen dayee noonu nañu Bocar Samba Dièye ci boppam di suñ pap na jël Abdoul mbay yóbbu ko ci justice porté ko plainte justice daf liggéeyam waaye lu dul loolu bés ñi ki tey